ñu déglu leen tuuti. lii du naxe mbaay su doon naxe jeex na bu yàgg. dëgg la waaw kay. parce que kenn du ñu dégg su dul woon dëgg kon fay nañ bu yàgg. dëgg la nañ bàyyi naxante bi te waxante dëgg. dëgg la fi nekk. dëgg la lébu yi ñoo moom Ndakaaru. dëgg la. ku ko mën daal defal. Hmm. ku ko mënul daal bàyyil moo gën ngay wax yenn wax yi. dëgg la. nu ma neex laa koy defee saa takk gala saa takk da damay yëy jàllale naan ndox. kaas bi kaas bi xëcc yëy jàllale naan ndox muy muy kaasu verre muy kaas ñaari kaas yam tabax ak verre. waaw yoy mom dama koy def. course dama koy téye di wax ak mom course bi di dem damay tal leget leget bi di tak yoy mu naa am mais lool du xam-xam. deug la xam-xam lo xamni tay salam alaykum senegal salam alaykum aduna ñu ngi leen di bégee di leen ziar di leen jaajeufal di leen balu ak ci événement bi ñu juggé di ñaan yalla suñu borom lepp luñ ci def ci lu baax yalla nako suñu borom nangul di ñaanal kilifa diine kilifa day di ñaan réew mi di senegal yalla na fi jamm yagg di leen bëggee di leen siyaar baax baax di leen ñaanal jàmm di ñaan mbas mi nga xam ne moo fi nekk yàlla sunu borom teg ko fi tey nag xam naa ni boole ma gisee ma toog di présenté émission bi am na ñoo xam dina leen xaw a yéem mais dama ni lu yëngu lu nekk la ko yëngu la ko doole kan lañ seet si tey surtout ak daawur bi kan lañ seet si tey borom géej gi ki nga xam ne man mosuma gis nit kuy lekk xottu biteel benn yoon laa ko mos a gis te ci kan alaaji Idrissa Ndiaye le jeune marabout borom Soumbédioune borom fiki penc ak ñaari tay mom lañ dalal fas waxtaan ak mom ci tollu way réew mi fas waxtaan ak mom aussi tamit ci jeunesse bi fas waxtaan ak mom ci lu bari parce que moom damay wax ni géej la lo ci tank tank tank tank bo ñëwee fa ngay fekkar cheikh bi nuyu naa la. auzu billahi minash shaitanir rajim ginnaaw biñ sante yalla julli senante bi di nuyu suñ serigne serigne Abdou Karim bakay borom Makarimal Akhlaq di la nuyu yow tamit yow guuy gi ah, di nuyu fukki penc ak ñaar. di nuyu le grand jaraaf euh, Youssou Ndoye euh, di nuyu tamit les deux grands sëriñ de Ndakaaru maa ngi leen nuyu bu baax a baax. Mhm. ah di ñaan si réew mi jàmm di nuyu sama nijaay xaa di Mbay di baalu àq waa àdduna ñëpp si mhm. julli gi nga xam ne moom lañ jógee. Mhm. di leen wax ne fii mooy Soumbédioune bisimilah jàmm. Cheikh bi tey dañuy commencé ci première question bi ñu gis ni bi nga ñëwé fi gis nañ jeunesse bi. xalé yi genn ba man daanaka am na lo xamné ne. maa ko teg sama bëtt ay nit ñëw naan la ñaanal ñu. yeen relation nga am ak fi ñu la fekk muy waa mbëjun waaw fi nak dafa doon suñu bërepp mhm. li fi nekk dafa bëri li fi nekk dafa sacré. Mhm. nekkul lepp lañ mëna wax. Mhm. nak comme liko suñu kilifa jaraaf waxee barkaati dem Idrissa Ndiaye fi lay ñëw di ñaan yalla jam bi nga xamni dafa am luko japp muy walau hmm. wala muy jinne hmm. wala ñuy ñëw si bërëb bi di ñaan si réew mi jamm nak bërëb bi suñ fi ñëwee liñ fi mëna def bari na dañ fi ñaan jamm hmm. dañuy ñaan ci yalla nak buñu gis nit ki di soti saw fi rek wala nit ki di ray rek ñu fogg ni dafa ñëw fi di def lu bon wala lu haram. rek loolu dañ ci nax seen bop bu baaxa baax nak euh, euh, bërëb bi dal bërëb bu maam ndëg daawar mbay la mais am nañu fi dëkk tamit ñu lu ndëg daawar mais ndëg daawar ay seen capitaine moy seen kilifa ñoom ñëpp waaw ah, kay manam yéen seen secret ñoo nekk ci ci ci geej gi maanaam ni mën naa ni géeju Soumbédioune bëriwul loo xam ne daanaka dina koy fàtt ci ay doomu adama par rapport ak yeneen plage yi mhm. géej dafa mel dañ ko sécuriser ban secret moo ci nekk waaw géej gi ki fi nekk ki fi nekk mooy ndëg daawor hmm. ak ñoñam yi ñu fi nekk maanaam ak njabootam mhm. waaye ndëg dafa doon kilifa goo xam ni maanaam mhm. du koy faat du koy lore moo tax géej gi do fi dégg ay lap dëgg la parce que ki fi nekk dëgg la jullit la. Mhm. te dafa téye peru salaatul faatiha muy maam dëgg daawar. Mhm. kon géej gi jàmm kese fi mën a am. Mhm. leneen lu fi nit di ñëw di ko fi indi te du doonul jàmm. billaay wallaay da lay da xëcc ba nga ñëw rek. mu boom la ko ca kaw. waaw kay. Mhm. ñun nag xam nañ li fi nekk ñun ñu fi nekk di fi liggéeyee mhm. xam nañ li fi nekk bu baax a mhm. suñ taxawee si ndox mi di liggéey xam nañ li fi nekk bu baax a wax jee bëri rek géej gi la neex nga tànkee fu la neex nga rootee waaye dafa am ñu nga xam ne yàlla da leen ko jagleel boobu ba tey ñu fiy liggéey waaw mu mel ne li nga wax ni li nga wax ni keroog jaraaf daf ko dëggal parce que mu ngi naan géej googu ku ko xamul ku ko xamul rek moo koy fowee fii mooy pooru poru jinne yi fi la nekk Soumbédioune. d'accord so beugé dégg ñu naan jinne jinne jinne poru jinne yaangi ngi Soumbédioune. d'accord. waaw wax ji nak du nekul lepp lañ mëna wax. deug la. waaw kay. deug la. Mhm. tay dañuy waxtaan aussi tamit ci walu ci ci ñaan. Mhm. parce que gis nañ ni légui ñaan mhm. comme promotion rek ku jug di ñaan ku jug naan xamna ku jug naan xamuñu naka nga jàngatee lolu waaw man de alhamdullilah ma ngi sante yalla sante yalla gi moy manam man bama commencé ñaan serigne su bari feñu deug la bima sama nijaay nan ma gennal wané sa bop wané yaay kan. deug la ci bari feñu ñu deug la comprendre nga 2011 soko xeyma ba tay yàgg na des na euh, don na suma jumul don na 11 ans xoma wala suma jumul. juumul. dëgg la dëgg la yaangi deug deug la legui nak la neex city bari bëri. Mhm. télé yi bari mhm. radio yi bari ku ñek woté né ma mën. Mhm. nga. ñi nga gis ñuy feñ télé ñu ci bari deug la waaw ah, kay. dëgg la kon nag ku nekk ak la nga yor rek. dëgg la yàlla xëy na moo leen moo leen waxoon ni dinañ ñaan. dëgg la dingatuma kenn nag. si li nga yor. dëgg la wax dëgg yàlla mais man tamit la ma yor xam naa ko ndax gëm naa la ma yor. Mhm. Mhm. mu mel ni fan yee passé dama seetaan sa benn naataango. Mhm. muy Kunkande. mu doon wax naan dafa am un jour. ngeen mësoon a daje yéen ñaar benn bërëb. ba sànq rek ko seetaanaat. nga seen ko muy njool di wàcc. nga jóg daw. ñi ko fekke woon a ngi nii de taxaw. kii Lamine mii si ginnaaw. dëgg la Lamine mun nga ko jël léegi mu wax su la neexee. Lamine ma jox ko ma jox ko mu ñëw sama ginnaaw nii. waaw tontu question boobu. ndax gis nga àdduna dañoo am ay kilifa. émission bi jaraaf mujjee def jaraaf nee na nañ ko bàyyi mu def lu ko neex. Mhm. man ak Xaadim Ba yëpp nañ ko bàyyi. dëgg la te ñun dañoo am ay kilifa. bi mu ñëwee fee la nekk di liggéey bëgguma cee soreeti sax wax dëgg yàlla. dëgg la fii la nekk di liggéey moo ma fi fekk moo dem. Mm-hmm. waaye man fii laa toog. Mm-hmm. waaw kooku bëgguma sax ñuy wax si waxam. dëgg la waaw kay. dëgg la euh, yàlla xam na ni jàmm laa ko yéene. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla defal jàmm ba lam sumb. suuru tam xarit mu mun kaa def. waaw kay loolu laa koy ñaanal. loolu xam naa dinañ si ñëw après. mu mel ni des fois da ngay gis léegi jeunesse bi ñu bari. da ngay jékki-jékki gis kuy dox daanu. ñu naan ay malaise la mu mel ni léegi daanaka kenn mënatul comprendre ñi naan ay rap la. est mën nga ñu la. Mhm. ak yan febar moy arrivé jeunesse bi ba légui da nga taw ak nit sax mu daanu. wa du du ci mujj ñu ngi akhiru zaman lolu kenn wérantétu ko. deug la waye tamit dafa am lo xamni yalla suñu borom moko bind hmm jinne yi dañu dugg ci bir askan bi rab yi dañoo dugg ci bir askan bi. Mhm. kenn wératul da ngay gis école nit ñi di daanu. nit di réew mi dafa am lu mu baax won ay jamono. deug la ñukoy def di ndeppal réew mi di waccel kaamil réew mi ñi mëna kurus kurus ni wasi wasi jumaa yi wasi wasi jumaa yi. ñu dem seeti grand sëriñ dem seeti la jaraaf comme le grand jaraaf Youssou Ndoye ñu ne ko saraxu Ndakaaru mu ne leen jëm leen seeti Xaadim Mbay Idrissa Ndiaye ak njabootu ndëg daawar ah, ay sarax yu fi war a def te ñun dañoo ay kilifa yoo xam ne ñoo fi nekk comme le grand jaraaf. waaw tey ngi war a def loolu suñ demee seeti jaraaf jaraaf dinañu woo ñun liñ si war a def ñu def ko. dëgg la. comprendre nga. xamul ñooy nekk si internet bi di wax di commentaire di wax. dëgg la lii ñuy def nii ay réalité la ku bëgg xam ba xam réalité wala du réalité suñ fi wàccee nak nga dugg ak ñun si géej gi nga xol so dawul jommi billahi wallahi wa taala lu ma la wax di bu ko gëm. ana nga ñu jël ay nak du dugg ak moom ci bir géej gi. fi ni su fi wàcceeg nak bokkoo ci nga fekk ma sama bir liggéey barki sayidina muhammad nga jommi sayidina muhammad kum neex nak may wàccee nak fi ci géej gi nga dugg fekk ak man si bir nak may tuuroo deret nga fekk ak man nga xol di nga gis lo musta gis. nañ bàyyi yi ñuy caaxaanee rab ça existe jinne ça existe. Mm-hmm. nañ bàyyi yi ñuy caaxaanee Ndakaaru à ah, ses réalités. Mm-hmm. Ndakaaru. Mm-hmm. a ah, ses réalités. te ñun si culture boobu lañ nekk di ci dox. su dul woon dëgg. kenn du ñu dégg su dul woon dëgg kon fay nañ bu yàgg. dëgg la. nañ bàyyi naxante bi te waxante dëgg. dëgg la fi nekk dëgg la. lébu yi ñoo moom Ndakaaru. dëgg la lébu yi ñoo moom Ndakaaru njëkk a sanc Ndakaaru. fii li am yëpp dañoo fekk ñu ko fii yii nii yëpp amu fi woon. da nga lon tollu ba di seen sumbe jum deug la legui la neex tabaxi ku nekk tabax fu ne taxaw deug la ñu waxante deug tamit mais legui comme yeen yi nga xam ne seen maam moo sanc mhm. ba moko mom ba ñepp nangul ko ko mhm. est ce que tey tamit jotul yeen ngeen jëm xol naka ngeen ñi waxtane pour am lo xam yeen do leen ci xaar kenn da ngeen koy jëlal seen bop wa ñu ngi def suñu touru sak at yalla mu ngi sutural khadim mbay diko def sama nijaay hmm. man makoy def fi mais li ci wara am deug deug deug état ko wara def deug la parce tamit ñun mënuñu tamit di jëlee si askan bi delloowaat ko si réew mi. dëgg la. foog mu am aide. aide dafa war a am. dëgg la aide yi ñuy def di ko def fu ne. Mhm. nañ ko commencé fii. dëgg la réew mi suñ ci suñ defee li ñu war a def réew mi am jàmm. dëgg la te réew mi suñ bëggee mu sedd fii lañ koy serale ak jam ñaajo da ak fee faca des jarul tudd. mais jam ñaajo boobu noonu dama fa dégg bi may nekk booy di commencé dugg ci làmb ñu ni jam ñaajo galaaj ba fa ni mu toj. waaw ah, dëgg la. mais loolu sa réalité la. dëgg la foofu Jibi Diop moo fa nekk Jibi Diop fa nekk loolu moom dëgg la loolu moom lu lu leer naññ la. kon léegi maanaam Ndakaaru ni ñu ko war a saraxalee mooy dañu war a saraxal fii ak ak Diamniadio no dama la. Mhm. réew mi suñ bëggee mu am jàmm. waaw suñ ñëwee fii ñaan mu am jàmm suñ demee jam ñaajo ñaan mu am jàmm suñ demee fàcce des ñaan mu am jàmm maanaam dafa am ñeenti xibla yoo xam ni <clears throat> Ndakaaru soo fi bëggee ñaan jàmm soo fa demee ñaan fa jàmm réew mi nekk si jàmm mi stable. dëgg tamit foog ñu nangul ñu ko. dëgg la c'est pas le moom mooy tax maanaam homme de tenue yi génn wala leneen ak leneen mooy tax réew mi am jàmm. dëgg chaque pays a ses cultures. chaque nation a ses mhm. ñun dañoo am suñuy culture am suñuy réalité mhm. léegi réalité yooyu suñ ko teg def ko. Mhm. dañuy lor suñu bopp rek. dëgg la. c' ça le problème moy deug la mhm. mais tay ji seen njit comme ko ñu melni ay jaraaf. Mhm. est ce que ñom ñu ngi def démarche yoy non ak état pour mom li nga xamni mo waro dekk bi chaque année mu koy def force. jaraaf ndono la yor du dem si kenn jaraaf Youssou Ndoye ndono la yor du dem si kenn nan ko kay ma ñu dimbali rew mi. deug la jaraaf day génn ay propre moyen di jox ay xaadim mbay na leen def leen dem leen ñaan. dëgg la ay propre moyen dëgg la te loolu état état état ko waroon def. dëgg la tey su jaraaf demee bay génn ay propre moyen dëgg la nañu waxante dëgg kon nag loolu nag si état be war a xoolaat seen bopp xoolaat seen doxin doxin. dëgg la état bi dañoo war a sang seen bopp ñoom. état bi état dañoo war a sang seen bopp déglu nit ñi tuuti ñi nga xam ne yàlla da leen a may. dëgg la leen tuuti. lii du naxe mbaay su doon naxe mbaay jeex na bu yàgg. dëgg la waaw kay. parce que dañu gis ni même ay football bu amee dañuy xool par exemple sëriñ yi nga xam ne ñoo gën a mag ci réew mi ñu yóbbu leen. Mhm. ngir di uti ndam. Mhm. mais tey sunu réew mi nga xam ne ñun. Mhm. parce que man démb rek dal na ma benn xale damay dox ni jékki-jékki mu daanu ñu naan ay malaise la. mais après doo comprendre kon tey jii ñun état ñu ngi koy lancé ñun ñi nga xam ne ñooy jeunesse bi nañ ñëw seet ñi nga xam ne ñoo moom Ndakaaru Ndakaaru bañ na ko ba sax bokk na ci liñ koy bàkkee koo wax ñu la borom fukki pénc ak ñaari kon loolu ay réalité loo xam ne fii lañ ko fekk. mais tey ñu ñëw ci li nga xam ne daanaka mooy actualité bu ñu nee actualité ñu xam ni ñu ngi jëm par exemple ay combat te daanaka combat yooyu ñaare daan nañ la ci dégg. lu ci mel ne ñu ngi jëm dimanche bi ñëw Bombardier Balla Gaye mhm. ban analise nga ci def. waaw analise moom ñun doomu géejawaay lañ doomu géejawaay lañ te dañuy ñaanal Balla yàlla may ko ndam munoo dëkk ak nit ki ba pare di ko yéene safaan. dëgg la wax wax dëgg yàlla ak yonent bi kuy kuy dem feneen di tëgg. dafa fekk sa dëkk tëggul. dëgg la. ñu ngi koy ñaanal Umar yàlla may ko ndam. dëgg la ci kaw Bombardier loolu lañ koy ñaanal yàlla. dëgg la waaw parce que làmb ji mënatuma ci wax lu bëri xam nga lu tax mënatuma waaw dama cee ñoo xam ni samay soppe lañ. waaw yenn mbër yeeg yooyu. moo tax mënatuma cee wax mais cadre Balla Gaye soo ma si laajee mun naa cee wax. waaw parce que ñoo dëkkandoo ñoo màggandoo loolu lépp mun naa cee wax. dëgg la mais cadre leneen moom mooy loolu. alors tay ji nak yaakaar naa dañuy ñëw ci sa walu liggéey. Mhm. ñu bëgg ñu bëgg a xam tay Idrissa Ndiaye. mom mhm. naka lay liggéeyee ak ku ko soxla yan pench ngay mëna a ñëw muy baasam pour mën ko gis. <clears throat> wa Idrissa Ndiaye mom ku ko soxla so ñëwee Mbaaw di nga ko fa fekk so ñëwee Thiès di nga ko fa fekk. Mhm. waaw le fait que nga wo ko téléphone mu wax la fim nek parce que sur rendez-vous lañuy liggéey. waaw waaw suñ la fixé les rendez-vous nga ñëw yalla def lañuy def inshallah ak feebar boo munti am. cataracte dal duñ ko fajj ak jabet duñ ko faj. waaw waaw. mais yeneen jàngoro yi nga xam ne ndoxum cité ak impuissance sexuelle. hémorroïde yooyu yëpp dañ koy dañ koy dañ koy faj ak faru rab ak. wàllu ndëpp ak yooyu yëpp. waaw mu mel ni football dañ ciy liggéey mel ni diaspora bi dem bi ma annoncé ni yow laay defal émission. Mhm. ñu bari ñu ngi may woo di ma laaj ni ma laajal ñu signe bi ba xam moom dina yëngu ci wàllu këyit ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe këyit bëgg a ñëw. dañuy yëngu si wàllu këyit ci wàllu passé seen permis boobu ñuy def dañ ciy liggéey nga bëgg fa am këyit pour di mën a dem ak ñëw dañ ciy liggéey loolu moom diaspora ñi may seetaan ñu si bëri liggéeyal naa leen si ba yàlla may na leen ci kayit yooyu waaw ah, kay. dëgg la ah, première nag bu ma njëkk a rey fii laa ko reyee nag bu weex la. fii fii laa njëkk a rey sama première nag bu ma njëkk a rey jum fii laa ko naaj bi tàng jër ñu rey ko fi. comprendre nga kon bërëb bi yàgg naa fi. Mhm. bépp jafe-jafe boo am biir Europe ci kattanu yàlla suñ ci waxtaanee yàlla may la ci ndam. Mhm. Mhm. mu mel ne nag am loo xam ne sànq maa ngi dégg sa biir wax nga ni loolu doo ci ñëwaat. muy wàllu kunkande waaye nag comme yéen tamit yéen moom géej gi. ah te moom tamit mu war a xar géej gi jour tam xarit yéen naka ngeen waajee événement boobu. waa géej gi sax ñun moomuñu ko yàlla suñu borom moom moom géej gi. waaw yàlla moom moom géeju boppam. waaw waaye da cee nekk. waaw muy maam dëgg Daawar Mbay. waaw euh, ñun dañ koy ñaanal xam nga dañoo am kilifa. waaw ñun dañ koy ñaanal ba bis ba yàlla kàttanal ko la ko wan ni mën naa xar yàlla kàttanal ko ba bis ba rek. dañ koy ñaanal daal mu mu tal ak fekkee. waaw loolu lañ koy ñaanal mais wax ji moom wax dëgg yàlla ak yonent bi mënatuñ ci wax parce que suñuy kilifa artu nañ ñu. dëgg la dañ koy ñaanal jàmm. dëgg la bu jour tam dëgg la mu ñëw xar incha allah. dëgg la. Mhm. mais est-ce que aussi tamit euh, Idrissa dina yëngu. ci parce que sànq suñu waa kër damaa toog ñuy seetaan sa vidéo. sama benn jabaru mag ni ma laajal ma ko ba xam dina yëngu ci wujj maanaam ñi bañ wujj. <laughs> waaw yooyu dañ ciy liggéey xam nga wujj moom fu ko yàlla tudd moom. dëgg la bokk wërsëg la la. dëgg la. waaw. Mhm. amul benn sëriñ bu la mun bu la mun a garanti na la sa jëkkër du am wujj. Mhm. garanti na la doo am wujj. Mhm. ah gisaguma ko de wax dëgg yàlla gënante bi. dëgg la. mu nit da ngay ñaan lu sa sëy neex. dëgg la sa jëkkër bëgg la. Mhm. mais sooy ñaan da dem de gauche à droite sa xaalis ay jeex rek après. dëgg la xam c'est problème. dëgg la mhm. aussi tamit mu mel ni léegi dañu seetlu jamono jii nii lu ci mel ni wàllu feebaru tële. Mhm. dafa bari trop trop ci réew mi. parce que soo xoolee tële bi lu koy indi ndoxum siti da koy indi hémorroïde da koy ini d'accord en général koo gis mu ne la impuissance sexuelle da am xoolal ci boppam bu baax a baax ndoxum siti ak hémorroïde. dëgg la parce que feebar yooyu dañ lay téye ba dañ wàññi sa doole si lu bëree bëri. dëgg la. Mhm. dëgg la tey ñu ñëw toll fi nga xam ne daanaka mooy été. Mhm. été bu ñu ko waxee ñu gis plage yi gis nga fii ni mel. Mhm. boo demee Malika yi nga dem yëmbal fu nekk. tey yan conseil ngay jox penc yooyu nga xam ne daanaka seen i plage daanaka dañuy recevoir lu bari ci ay nit. waaw dafa am géej yoo xam ni accès interdit la. comme lu mel bu Malika beeg ak bu Géejawaay bi. waaw yaa ngi dégg ak bu Mbaaw bi. waaw dafa am plage yoo xam ne plage yoo xam ne kenn war faa sangu comprends nga. d'accord kenn war faa sangu ndax soo fay sangu maanaam rab mun na la fëq. d'accord parce que rab yi dafay bëri parce que rab yi dañuy foofu dañuy lekk. d'accord dañuy lekk lu bëree bëri. Mhm. kon moo tax foofu plage yooyu day laaj ay sarax yu fay war di def parce que sarax yi ñu def si géej gi moo amatul moo tax géej gi actuellement nii di lek lek di yóbbu. parce que man Malika fa laa dëkk fan yee passé ci ay minutes rey na fa sept personnes. rab bee de rab rabu géej gee def noonu géej gi dafa dañ dañ géej gi ñoo war maanaam rab géej goo dem am na rab. dëgg la rab bi day soxla neexal su su gisul neexal bi def ko si nit ñi rek. dëgg la loolu rek. dëgg la daanaka tey mën naa ne ñu ngi ci cappaandaw émission bi. Mhm. vraiment ñu am contentement lool xare naa jot nag waaye moom day sama waay. Mhm. mën naa ne sax Cees la jógee nii ñëw mu xat lool nekk ci ay tey jamono. Mhm. tey ban message ngay lancé jeunesse bi. fii réew mi toll. waa jeunesse bi moom li ma leen di la lancé mooy ñu ñu dal ku si nekk xool ci loo jàpp parce que suñ génnee di rayante si mbedd bi. wala di xeex si mbedd bi. di xeex ak homme de tenue yi. wala di saccager. wala di toj. wala di toj. suñ bopp la ñuy yàqal. dëgg la. yàqal ñu kenn ñun suñ bopp la ñuy yàqal. dëgg la kon mieux vaut ñun ñu xam fu ñuy teg suñ tànk bu baax a baax. dëgg la. ndax ñi nga xamni ñoo tax ñuy xex muy état beeg yooyu. dëgg la ku ci nek sa dom nek fi. sa dom a ngi bonne condition. kon ñun ñoo wara mëna défar suñu réew ñun jeunesse bi. deug la ñu bayyi le président mu gouverneur réewam. deug la su ko fi yalla waree jël rek dina fi jugee. deug la su ko fi yalla namé tek rek dina ko fi tek deug la comprends nga. deug la man réew mi am jamm lay ñaan. Sénégal am jamm mais naka nga gissé Sonko. non xaw <laughs> moom wax deug yalla ak yonente bi man mom mais en tant que citoyen. wa en tant que citoyen wax deug yalla ak yonente bi. hmm gis na ni dañ ka tojol dal dañ kaa tojal dañ kaa tojal mhm, gis naa loolu daal amoon na alir nag mais léegi moom gis naa ni moom dañ ko dañ ko dañ ko tojal wax dëgg yàlla ak yonent bi dañ ko tojal mhm. maanaam ndax tojal day am tojal politique xam nga dafa bëri ay ay ay ay waaw waaw ñu leen di ñoom ñëpp daal jàmm ñu ngi leen di ñoom ñëpp jàmm daal yàlla defal leen jàmm allahumma amin mhm. tey mu mel ne nag defoon nga fi benn miracle boo xam ne benn kéemtaan boo xam ne ñu bari dañ naan <laughs> non loolu da même bu jaree sax àdduna bi yëpp ñëw dagg tike ñu koy defaat uh-huh. gaay ne nañ loolu bëgg nañ nga leeral leen. lekk mhm. xottu butéel man doon naa ko def ci lamset mais sama làmmiñ bi yëpp yàqu. waaw lekk kaasu verre loolu kiraama rek la du xam-xam mënu laa indil dara maanaam loolu fan la baaxee maanaam tey xam nga naar gëmul dara. waaw naar gëmul dara. waaw naar soo bindee jox ko mu xam ne lii nga bind nii mooy loolu bu ëllëgee day dem copier dootul ñëw si yow ne la ñaanal ma. <laughs> waaw tey naar soo ñëwee def kiraama boobu si kanamam. waaw danaan kii dof la. am na ñu nekk si biir société Sénégal bi kiraama boobu soo ko defee seen kanam dañ naan kii def la. yor nañ yeneen kiraama yu dul lekk kaas. waaw ndax lekk kaas boobu rek war nañoo yóbbu fenn actuellement. dëgg la suñ fa yeggee benn cérémonie la mais nekkul Sénégal. buñ ma invité. yàlla xam na loolu kaas boobu. pour lekk kaas boobu te kilifa ma invité foofu. saan waaw comprendre nga. waaw kon gis nga fu mu ñu mën a yóbbu. dëgg la ku ko mën daal defal. Hmm. ku ko mënul daal bàyyil moo gën ngay wax yenn wax yi. dëgg la nu ma neex laa koy defee sans takk gala sans takk da damay xëcc yéey jàllale naan ndox. kaas bi kaas bi xëcc yi jàllale naan ndox muy kaasu tabax muy kaasu verre muy kaas ñaari kaas yoo am tabax ak verre. waaw. yooyu moom dama koy def. kurus dama bi di dem. damay taal leget leget bi di tàkk yooyu mun naa am mais loolu du xam-xam. dëgg mooy loo xam ne tey lu mën a jëriñ askan bi lu mën a jëriñ askan bi. Mhm. maanaam li nga xam ne askan bi moom lañ soxla guddiñ toll si lañ war a wax. dëgg la teg ay feuilles génn xaalis. loolu du xam-xam. loolu set set dafa terre à terre. dafa terre dëgg la xam-xam dafa am fuñ koy fuñ koy fuñ koy wane ak fuñ koy. waaw faj nit ki nit ki nga xam ne jinne da ko dugg. nga nga génne jinne ji. waaw loolu mooy xam-xam. Mhm. nit ki am ay problème nga génne ko ci loolooy xam-xam. waaw xam dafa doon loo xam ne yére boo xam ni. da ko sol tegaat beneen yére ci kawam la. waaw maanaam comme siletement su nekkee sa biir yére. waaw nit umpale ne xam ba xam ban siletement nga sol soog ko wanul. xam-xam noonu la mel. Mhm. mais bii feeñ loolu du xam dëgg la man maa ko wax. dëgg la waaw ah, loolu du xam-xam dëgg la mhm. mu mel ne daanaka jël nañ lu bare bare bare ci sa waxtu mhm. te bëri na mbooloo moo xam ne ngi taxaw fii di la xaar mhm. ah tey sa mot de la fin lan ngay tàggatoo waaw di ñaanal sama yaay ak sama papa di ñaanal sama jabar dëgg la di ñaanal sama entourage bi nga xam ñoom lay àndal dani Momo l'international asan ah euh, comment dirais-je Lamine asan asan beneen asan bi tamit sama goro yaa ngi dégg Euh, di ñaanal Mama Ndiaye. Mhm. di ñaanal àdduna jàmm. Mhm. Ah, mhm. di ñaanal ñëpp di ñaanal ñëpp. dëgg la comprendre di leen nuyu di wax sëñ Fallou na gën a yokk làmp yi. Ah, di ñaan si réew mi jàmm. dëgg la surtout loolu réewum jàmm la surtout loolu fii ñu ah. toll dëgg la. waaw réew mi réewum jàmm la. dëgg la di waxaat nag euh, géej gi géeju ñëpp la. dëgg la ku si mën nga def rek ñëwal nga def. dëgg la waaw ndax ñun dañoo am ay kilifa. mais sa xarit xanaa buy ñëw jour boobu di nga ko teeru. kan Koungheul. kan man non yooyu. di di di nuyu seeni mbay. suñu suñu suñu mag la. waaw suñu lépp la di nuyu sama nijaay xaadim mbay. dëgg la waaw di nuyu maam li baax di nuyu fukki penc yeeg ñaar yëpp. dëgg la waaw di képp képp kuy lébu maa ngi lay nuyu. dëgg la waaw di waat seeni mbay bu baax a baax. dëgg la waaw waaw maa maa koy maa ngi koy maa ngi koy si kee di tourné si sëtul ak daawri la bokk. ah day tourné waaw. yaa ngi day tuur day tuur non bàyyi noonu day day tuur xam nga xam na lépp loo xam ne sutura la. waaw xamoo ba xam li muy dugg ba xam bëgg na bëgg na feeñ. parce que man ak moom ñoo doorandoo. waaw waaw suñ nijaay tette ñu. teg ñu si yoon. ber ñu. comprends nga tey wax xamul woon ni maa ngi ñëw si géej gi. waaw kon tey alhamdulilah. dëgg la di nuyu Thiès bi ma bàyyee ko waa Kër Sëñ Saliou Touré yëpp. dëgg la maa ngi leen di siyaar ñoom ñëpp. dëgg la di nuyu waa Thiès yëpp. di nuyu tamit waa Tëngéej waa Lebu Géej yëpp. dëgg la waaw maa ngi siyaar. dëgg la vraiment gars yi kontaan nañ comme ni mu ko waxee lii rek daanaka preuve la. tey mu ngi ñëw jógee Thiès ñëw fii direct di def émission. Mhm. am beneen mbokk nawlem bu ñëw di tour ça veut dire que ni gis nga nit am na loo kenn ko gis nga walu geej ak walu fajj ak walu détail yoy gaay nañ koy fonk bañ koy caaxaanee bëgg buzz wala bëgg alal wala bëgg succès mhm. bu mu tax ngay laal ay 18 jambour lo gis du da am borom malaka mu ne am nga malarté duñ jam fi dañu ñëwaat fii fas yéene ak yeen yenen rendez-vous ci yenen émission Africa rek lay xewee ànd ak sama euh, monteur Maysa sama cameraman Maysa sama élément bëss dafa nek stage mais légui da xew daw ah <laughs> mëroon ànd jeeg sama équipe bi yëpp bas maa ngi leen di bëggee di leen ziar di leen jaajëfal di leen jox yeneen dig daje ci yeneen